xanaa cant gu rëy rëy ci bu ñu sunu borom mayee ñu fekkewaat ko guddi gi gën ci guddi yi di weer ci weer yi gën ci weer yi di weeru koor ñu ciy sargal bokki jullit yépp ak bokki taaluga yëpp di ci ñaanal sëñ Momadou Muntaxa mu yàgg fi te wér di ci ñaanal sëriñ Cheikh sunu sang ba sëriñ Touba. may ko wér ci barkeb Serigne Touba euh, bis bi nag dañ ko aadawoo fii di ko fi màggal ci ndigalul sëriñ Saliou cheikh bi sunu sang ba Cheikh Béthio moom la sëriñ bi joxoon ndigal ci mu amal bis bi di ko màggal muy guddig laylatul xadar laylatul xadar nag daa am taarix mook cantaakoon yi ndax guddi gii tey ca Mbuur la Serigne Saliou yu waxoon Cheikh Béthio ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana kon muy guddi goo xam ni eh, ñun cantaakoon fonkoon nañ ko sax ndax li mu doon guddi gi gën ci guddi yi waaye it loolee Serigne Saliou dogaloon ca jëmmam ja moom Cheikh Béthio daa tax ñu gën ko fonkaat waaw maa ngi sant bu baax di nuyu jullit yëpp fu ñu mën a ci mag di leen ñaanal yoolu guddi gi Serigne Touba defal nu ko 17 avril nak mom day bis bo xamni day bisub cheikh bi bis bo xamni mo ñu may ñu mëna am tay jii di magal guddi gi ndax dajeem ba ak Serigne salim dajeem bu barkel ba ak Serigne salim moko may lepp motax day bis bo xamni ci ñun cantaakoon dañ ko fonk lol ñu ci wo aduna bepp ku wex ak ku ñuul fu way banane ñu ngi lay ñaan bu bis nga ñëw santalee ñu Serigne Saliou ci bis boobu ndax bisu cant képp la waaw a ah ñu ngi koy ndokkeel ñu ngi koy ndokkeel moom réew me ko tànn ñu ngi koy ndokkeel te di ko ñaanal di ko ñaanal ndax moom ñu ñaanal ko mooy ñaanal suñu bopp ndax réew mi buñ ko ñaanalee lim ci bëgg mu am ko ci bu boobaa it ñu ci biir la ñu ne moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko sëñ Touba defal tawféex ci pal gu sam gii mu woyof tol diis gan te woyof tol ci barkeb Serigne Saliou